campagne bi nga xam ni moom lañu nekk ak bi ñu génn ak euh, préparation wu njënd ak njaayum gerte ak itam euh, subvention bi nga xam ni dañ ko annuler ci mbirum njënd ak njaayum gerte loolu mooy li nga xam ni moo tax ñu daje fii pour waxtaane ko euh, ku ne xam na ni prix bi nga xam ni mooy prix gerte gi ñu ngi ko fixé ci 210 210 lañ ko fixé donc leneen li ñu ciy waxaatit mooy campagne bi incha allahu rabbi suba lay démarré pour ñëpp xam ko ni campagne ci njënd ak njaayum gerte suba lay démarré te prix bi ñu ngi ko fixé ci 210 donc loolu mooy pas yu njëkk yi nga xam ni moom lañ moom lañ moom lañ euh, tegagun actuellement. Euh, di di xamle aussi ni ci début wu campagne bi peut-être ñu bari doon nañ dégg ci ñun ñuy wax ni liggéey bi fi mu jëm baaxagul liggéey bi fi mu jëm baaxagul kon euh, tey su ñu demee ba camp nawet bi yegg si fii yàlla def ci sutura war nañoo sant yàlla tey itam ñaanal ñi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi ndax dès le début bi ñu alerté. bi ñu alerté ni lii fi mu jëm baaxul war nañ ko saytuwaat càmbar ko pour ñu bañ am jafe-jafe. leneen li ci yokk mooy dañuy dégg ñu naan subvention bi nga xam ne moom la état bi doon def ci mbay mi daf ko annulé dëgg la am na lu luñ ci annulé mais suñu nee dañu annulé subvention bi ñu doon def ci mbay mi rek c'est un peu compliqué ci nit ki koy dégg lan lay dégg wala baykat bi koy dégg donc kenn annulé wul. subvention bi nga xam ni moom la état bi doon def lan la ñu annulé mooy dañ doon état bi daf doon def day subventionné gerte gi muy jiwu bi mboolem xeet jiwu yi pour ñu bañ a guddal dañ koy def état bi ne la indil indi ci exemple rek laay joxe nag pour bañ a guddal exemple laay joxe état bi danaan la indil fukk ma fay fukk ma jàppale la fay fukk loolu nga def ko ci engrais def ko ci gerte. def ko ci ñebbe def ko ci matériel def ko ci produit yi nga xam ni àll bi tey bu sa tool bu ko benn gunóor wala loo xam ne da koy yàq attaqué da ngay woote rek ñu ñëw pompeel la ko gratuitement yooyu yëpp ñu def ko ba pare ñu bëgg ni suñu paree nga ne état bi kaay ak li ma defal lépp dañuy jaay ak jënd gerte gi dama bëgg nga ñëwaat joxewaatal ma fukk ma jënd fukk nga joxewaatal ma fukk fukk yooyu fan lay dem demul ci baykat bi fukk yoo xam dafa war a dem ci poos kenn xamul fu mu jëm loolu lañ ni dañ koy dindi prix bi aussi bi ñu def 210 dañu wax ni 210 lañ ko fixé mais ku man lu ëpp 210 jëndal parce que état bi ak ministre bi nga xam ni moom lañ dénk agriculture ak gouvernement bi yépp lenn rek la ñu bëgg mooy baykat bi jariñu pour baykat bi jariñu nag. dañ naan 210 bi prix bi nekkoon bu mu wàcc parce que bu wàccee rek béykat bi loolu waaye nag suñu nee 210 bi mu nekkoon fa lañ ko yemale waaye ku mën a jënd lu ko ëpp ngir jàppale béykat bi defal ok alhamdulilah dañu ne prix bi bu mu wàcc 210 ku mën 210 jëndal ku mënul bàyyil ku mën 210 jëndal ku mënul bàyyil waaye nag prix bi duñ nangu moom muy wàcc 210 ngir bu ñu ko defee béykat bi day loolu Thank you.